asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci bopp yéenekaay yi tey di altine yemboog ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février 2013. li gën a fës ci bopp yéenekaay yi bokk na ci ci las fësal ci xëtam bu njëkk mu ngi xamal de ginnaaw bi nga xamante ni nii cour de justice bu CEDEAO wax nañ li ñu wax ba pare concernant euh, tere gi nga xamante ni nii tere woon nañ ko ministre Abdoulaye Wade yi fi jógee pour ñu génn dëkk bi ñoom nee nañ kat kii di ministre de la justice moom def na leneen lu bokkul ak euh, décision boobu nga xamante ni nii bàyyeekoo na ca cour de la justice ñu ni ko tax mu ne waaw ndaxte kat kii di Aïda Ndiongue Madické Niang Samuel Sarr dañ leen jox ay lettre de notification yuy wane ni ba léegi ñu di tere ñu génn dëkk bi tax ñu xamle ni ah kii di Karim Wade Balde ak Omar Sarr kan ñoom dinañ jot seen i kayit tey jii nii bu ñu moytuwul dara le PS maanaam parti socialiste moom muy xamle ni kat gouvernement bi war def dara lu dul nangu li nga xamante ni ni loolu la cour de justice bu CEDEAO wax l' état nag moom ñu ngi xamle ni kat gouvernement Abdou Macky Sall bi yamul ci loolu rek ndaxte kat kiñ ci dugal mooy Aïda Ndiongue ku ne xam ne ni Aïda Ndiongue moom bokkul woon sax ci ñi ñu tere woon ñu génn dëkk bi waaye xamle nañ ni kat ginnaaw biñ ko dégloo ba ñëpp foog ni fàtte nañ ñoom fàtte wuñu ndax desandi nañ ci mbir boobu ndax te xam le nañ ni kat ña ngay lëmbët bagaasu Aïda Ndiongue fële ca Luxembourg ba pare nag daal di nañuy bloqué ay comptam yu nekk fële ca France la populaire daal di desandi ak ñun ba léegi ci notification yi nga xam ni ni état bi ñu ngi koy jox ñi nga xam ni ñooy waa kër Abdoulaye Wade pour ñu bañ a génn dëkk bi ñu xam ne ni kat Karim Wade ak ay njaganaare moom dañ leen téye fii ci Sénégal gi le ministre de la justice ak agent judiciaire du Sénégal ñoom xam le nañ ni ñu ngi taxaw dëgg dëggal fi nga xam te ni nii fa la ñu nekkoon Aïda Gassama Tall nekk agent judiciaire de l'État moom mu ngi xam ne ni kat ñoom dinañ continuer di joxe seen i lettre de notification yooyu le quotidien daal di xam ne ni kat ginnaaw bi nga xamee ni cour de CEDEAO moom wax nañ li ñu wax ba pare état bi moom le procureur spécial moom ma ngay continuer ba tey di joxe ay lettre am di xam ne ni kat ñooñu ñu tere woon ñu génn dëkk bi ba léegi ñu ngi leen di tere ñu génn dëkk bi ndaxte amuñu droit génn dëkk bi tant que procédure bi ñu dëgg ñu ibbi jeexu le quotidien daal di séq ak waxtaan ki nga xam ni mooy Mbaye Ndiaye nekk directeur structure structure bi nga xam ni mooy parti APR nee na nag bu xalifa Sall bëggee des ci mairie Dakar def du def dara lu dul war a ñëw nag ci APR ndaxte ñoom du ñu jiite réew mi ba pare di nangu capital bi ñu koy jël ah ba pare xam leen ni kat bu ñu moytuwul dara di séparé wu parce que ñoom li leen yitteel ndax li ñu bëgg mooy dem ci élection gox nga yi ñoom dong le quotidien xam leen ni kat Sénégal mom ci pays ñu incriminé la bokk las daan ñuy xamal ni kat ay armes armes yu nga xam ni bu gendarmerie Sénégal ñoko yor dañ ko daal di fekk ci loxo yi nga xamni ñoy ñooy ya nek ci Mali ginaaw bi ñu séxé waxtaan yi nga xam ni ñoy jité gi gendarmerie bob dañ ni nak dañuy foog ñu xaar euh, lëgmat xolaat fi affaire yi juggé pour ñu ci dooro mëna mën l'observateur ba tay dessandi ci li nga xam ni nak moy prolongement wu autoroute à péage bi nga xamni war nañ ko défar euh, ñu ngi xam ni kat marché boobu mom ñu ngi naan sax est-ce que du gré à gré maanaam yaa ma neex ay affaire daal yu jubul dara ñu ngi ci biir ndaxte kat alal ji nga xam ni loolu la ñu war a defaree tëli boobu du ngi toll ci 80 milliards ci suñu koppar li gën a fës ci bopp yéenekaay yi ci xibaaru tàggat yaram suñu làmb di ñu xamal ni kat face à face bu explosif bu nar a tàng moo war a am tey ci diggante am a neex ak ki nga xam ni mooy Ama Baldé waaye du ñoom dong ndax Juan ak Boy Niang ñamit dañu war a euh, jàkkaarloo tey jii ñu xam ne ni kat euh, dañu bëggoon a jël Tyson daal di koy boole ki nga xam ni mooy Bombardier waaye Tyson dafa bañ nee na moom daal Gris Bordeaux la daal di préféré yanda nag daan na ki nga xam ne ni mooy 50 Cent laas daal di ñëw xam le ni kat euh, Gaston Mbengue ak Assane Ndiaye ñoom dañoo bokk benn jour combat bu ñu war a tëggal kenn kam ma ngay def lutte simple muy Assane Ndiaye ka ca des di def lutte frappe wala boole ki nga xamante ni nii mooy Jos ak euh, Tidiane fay ñu daal di xam ne ni kat bu ñu moytuwul rek ñaari combat yooyu benn moom dina ca géey fait divers maanaam xibaaru jamono ji l'observateur taxaw def seetlu benn seetlu bu doy waar bu tiis ndaxte mu ñuy xamal ni kat bii ñu génn nag juróom-ñetti sénégalais daal di nañ ci ñàkk seen bakkan ñu ni nag ci juróom-ñetti yooyu ñeent ñi ay xale lañ yoo xam ni amuñu sax fukki at xamle nañ ni am na ñaar yoo xam te ni nii fële ca euh, Tamba la ñu ñàkkee seen bakkan ñu xam ne nag ci kenn ku jigéen ku tolloon ci juróom-ñeenti at moom dafa daal di lab ca ndox ya nga xam ne moo daajoo fële ca yëmbal benn taalibe camion daal di koy fiir fële ca Ross Béthio benn pirogue ak daal di tamit euh, faat benn nit ak benn miraculé fële ca nga xam ne nii mooy seen yu ñu xam ne ni kat màgget Fall moo ci ñëw tegu nekk ab sénégalais bu nga xam ne ni daal di nañ koy faat bakkanam fële ca Espagne le populaire di ñu xamal ni kat benn sénégalaise buy turu wuyoo ci bu wuyoo ci turu Philomène Sène moom nag euh, dafa daal di euh, faat ñetti doomam waaw ñetti doomam la daal di teg de daal di leen di rendi waaw xam ne nañ ni kat euh, famille boobu moom drame daal di nay yàgg ci ñoom ndaxte kat 2007 bi ñaan xale yooyu sax ab terrain demoon na ba leen di waaja mbëkk waaye mbëkku leen ñu xam ne ni kat Philomène boobu ginnaaw loolu moom ñu ngi koy yóbbu fële nga xamante ni nii fa la ñuy saytoo ñi nga xamante ni nii seen xel neexul dara. suñu mbokk internet yi fii la ñu ne loonu ndar képpee li gënoon a ci bopp yéenekaay yi wante balaa boobu deketeyo yo ndekete yo ndekete yo <laughs> mbeuri <laughs> dañuy beuri de wante nak du rêver nek entraîneur wara nek promoteur rek mo nek sen bop dedet amna ci ño xamanteni ni xam nga luñ bëgg doon conseil au président wala ministre nak waaw ndekete yo amna ñenn ci mbeuri plus particulièrement ki ñu naan zos borom sos sat borom dordorat mom mu ngi wax ci petit yene kay bi xamne ni kat limu bëgg du dara daari nak bu jugé ci lamb ji dafa bëgg nek ministre wala mu nek ci wet wetu gouvernement bi di conseiller ki nga xamni président de la république yalla nako ci yalla jappalé suñu mbokk internet dit fi la ndarké pé li a ci bop di lañ jox dig Dajé ëlëk di lañ ñaanal ay